mais mairie bi tamit nekk institution boo xam ne Serigne Touba moo fiy teg ki fi nekk ci ndigalu Serigne Touba la fiy nekke mu nekk fi ñun ñu nekk ay conseil di ko jàppale kon tey mën gëm naa ne lépp lu ñuy liggéey ci dëkk bi rek ku ko mën a def ak foo mën a jógee mairie bi nga ciy jàppale mairie bi moo ci war a jiitu moo tax ñu indi carburant bi nga xam ne moom la ñu war a liggéeyee liggéey bi ñu indi ci mën naa ne indi nañ loo xam ne mën naa tàmbali liggéey bi ba jeexal ko ànd ak suñu maire dañoo tàmbali rek dinañ àgg foo xam ne fu Touba ca kanam nekk rek fu Touba ca kanam nekk rek mairie bi dana fa nekk lu mu bëgg a def rek danañ danañ ko ci jàppale ndax loolu moom mooy suñu concept te maire bi maire bi tamit loolu la loolu la ñu digal ñun conseil yi ñoom la digal assants yi fi nekk yëpp. Oh, waaw ok euh, a pare ci ko jàppee nag Touba ci kanam parce que vraiment maire xam nga mairie ak Touba ca kanam bokkuñu Touba ca kanam mën nañu wax ne ab association la. mën nañu wax association la mën nañu wax daayira la mairie nag ab liste la moo koy fal dañuy defar liste. population yi voté ko ñu fal ko mu am ay conseillers am ay adjoints au maire bokkuñu sax yoon yuñ jaar lii mi ngi mel ni li fi jaaroon rek daayira yi fi jaaroon wala yi fi nekk yoo xam ne si ne dañuy liggéeyal Serigne Touba mairie bi nag nekk institution boo xam ne aussi loolu mbiru mbiru état la démembrement état la. moo tax bokkuñu Touba ca kanam liggéeyam mairie bi ak liggéeyam waaye mënuñu ñàkk ànd ndax ñoo bokk bokk bu ñu bokkut fu ñuy roote it ñoo bokk fu ñuy sotti. li ëpp ci population Touba dañuy wax ne li Touba ci kanam li muy def mairie bi la waroon loolu yéen nan ngeen koy déggee. waaw xam nga nit dara war la nga man lépp boobu euh, yombul parce que Touba am réew la soo xoolee Dakar 19 communes d' arrondissement la Dakar 19 communes d' arrondissement la Touba ñu ñu mooy deuxième ville nekk benn mairie li mu yanu dafa bari ci boppam kon dama gëm ne rek li soutien la bu ñëw jàppale mairie bi.